bismillahi ci lay doore di way daara ramani ngëneel sëriñ daara asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bu ngeen déggee looloo xam ni lislaam bi amatina ndam ndax al madaaris qabla al masaajid bala ñuy ut jàkka war nañu am daara li lee waral sëriñ Xasan Saar di nit ku yàlla baaxal di fajkatu xaajo taxawal daaray interna di leen yëgal ni daara ji ubbi nañ ko njàng mi door nañ ko daaray internat ngir jàng alquraanul karim ak bépp xam-xamu diiney lislaam nekk ca njaxate njaasaan sëriñ xasan saar di wax ni képp ku bëgg a yar sa doom def ci moom éducation bi gën ci moom jàngal ko xam-xam teg ci mu mokkal alquraanul karim muy góor di jigéen inscription bi vingt mille la mensualité vingt cinq mille sëriñ xasan saar di wax ni képp ku ci bëgg a gën a am lu la leer wooteel ci numéro bii ma lay jox 77 447 43 64 77 447 43 64 boo ci wootee di nga jokkoo ak sëriñ Xasan Sarr jàngalekatu alquran bu mag boobu ngir nga gën a am lu gën a leer te gën a wóor.